asalaamaaleykum mbokk asam ni waa ngi leen nuyu bu baakha baakha baax di len ziar tay nak ñoo ngi fi ci centre de santé de Cambérène di dooreel les vaccins fi ci Cambérène ñëpp xam nañ ni vaccin ñu ngi ko commencé mardi passé di yem boog 23 février tay nak di première mars di altine bi ñu dooree suñu vaccin fi ci centre de santé de Cambérène ñu dem seeti suñu élément ñoo rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala asrafil mursalin sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam di jiital kàddu yi sant yàlla sant yàlla mi nga xam ni moom mooy fi dajale ci waxtu wi ah, di ko sant di ko gër di ñaanal di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu xalifa bi bu baax a baax yàlla na fi yàgg te ak wér ko ñaanal mboolem xulafaaw yi ci kanamu diine yi ah, bisub Ah, bisub uh, jàmm la bis boo xam ni nit ñi dañu war a am benn li tubaab di tudde prise de conscience mooy dañu toll ci jamono boo xam ni mam li maamu laay junjoon na ko nee na di dem ci jamono feebar dina lëmbale jamono ni muy lëmbale jamono lu mu tuut tuut nag dina faat ay bakken yàlla nee na nag loolu du kenn ku ko tege ku dul man dinaa leen nattu parce que ay nattu la yu nu yàlla di teg wala nabluwannakum bi shay minal xawfi wal juuxi wa naqsin minal lamwaali wal anfuus wa samaraat nee na dinaa leen nattoo ragal dinaa leen nattoo xiif dinaa leen nattoo lu ngeen daan dunde weer léegi dingeen lu ngeen daan dunde at léegi weer sax du tax mu mati leen dinaa leen nattoo deegu bari itam daa bu boobaa nag may laaj lan mooy seen taxawaay seen taxawaay mooy delluwaat ci yàlla yàlla nag dellu si woon ku nekk da ko jox ab cëram lii ñu fi andi tey yàlla moo ne feebar bu ma indi itam saafaraang si wet bi bu ngeen gëstoo gis ko ah yàlla def nag ñi nekk si kër docteur yi li sanga bi wax léegi cité na aaya bi fas alu ahla zikri in kuntum laa tax la moon da di laaj ñi yàlla jagleel na may yi su fekkee xamu leen ci waat fànn googu kon docteur yi lii nga xam ni moom lan ñu digal du dara lu dul gën a sàmm suñu wër gi yaram ndax ñoom ñooñu ko gën a xam kon nañu tënku si li nga xam ni loolu la ñuy digal su ko defee ñu mucc waaye kiy muccale mooy yàlla subhaanahu wa waaye dina ko jaaral si ay jaamam nag kon loolu moo fi xew tey ñuy ñaax askan wi rek ñu ñëw comme que yombanal leen leen ko ay nit yëngu nañu si dox dugg fu nekk ba am ko bu ñëwee nag yéwénuñu ko ñu war si def kemtalaay suñu kattan kon li fi ñëpp taxawu nu ñëpp ñëw ñakku ñu ngi ñaan yàlla li fi jot a nekk nee noon doyul yàlla mi mottali di doyal yàlla na indi ba ñëpp àdduna bi yëpp ñakku ko boo ko defee li nga xam ne mbas la mu fi nekk suñu borom ba dindil nañu ko moom mi teggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waa tey nag li la leen indiloon ñu leen jox dig dage si beneen édition spéciale jaajëf